tissu yi tabaski de moom macha allah fi ne nii moom wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax waaw dox na bu baax ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla. daaw mun nañu wax ne sax ren moo xaw a tane ndax daaw boo dee xool période Covid bi moo xaw na laal ñëpp ñu bari ba tax na am na ñu bari ñoo xam ne sax préparé wuñ ko quoi mais ren moom macha allah sant nañ bu baax daal waaw. tabaski moom mun nañu wax ne lépp doxandoo ndax euh, événement la boo xamante ne si ne ñëpp bokkuñu gu quoi. waaw ñii dañuy xot ñii mbasin lañ bëgg ñii tissu xam nga ñii dañoo bëgg ay design ñii ay cuub xam nga waaw mba jaay bi daal dafa variété daal macha allah en tout cas daal moom moom macha allah daal tabaski bi ñun moom suñ jaay moom wax dëgg yàlla amul dugg si naan gisuma li ma bëgg daal damay génn fii moom lépp fi am moom boo ñëwee loo mën di am ci loo mën di am di nga sañse te loo bëgg it di nga ko fekk incha allah waaw. wax dëgg yàlla jaay mi moom xañ na action bi ni mu demee la rek waaye moom sant nañ bu baax daal. waaw daa moom booy xool day mel ni sax moom moom daaw moo gën a tane ci sunu côté waaye nag lépp ak sant yàlla la rek ak sant la rek wax dëgg yàlla sant nañ bu baax daal. client yi ñëw nañ moom macha allah. ñi nga jënd ci mbase gold bi ñi nga jënd borode jënd borode waal jënd waal jënd jënd warsi jënd mbase kii bi jas neer original moom daal tubaarkàlla moom jot ci moom yombul moom ndax affaire bi fa muy jóge la moom moo xaw a kii daal. waaw moo xaw a jafe am jafe-jafe tuuti rek. ah am na différence nag am na différence bu baree baree bari ndax ren moom sant yàlla xam nga daaw moom corona bi sa lu bon bon nit ñi yoroon nañ xaalis denc ko lu ñu yoroon ci lañ doon def préparation tabaski waaye ren jii moom ren jii moom la yàlla xam doy na moom sant rek sant rek. yéen ci si jamono hmm, ak euh, brode kii bi monica bi boobu daal lañ gën a bëgg moom ak ak contre jasneer bi ak jasneer kii bi boobu daal lañ gën a bëgg moom ren kay ku xool ni situation bi demee xam ne ren moom sant rek sant la moom moom metti na lool moom metti na lool waaye daal ku luy jar fukk bu ñëwee juróom lañ la ci ñuy fay ka gën a góor góorgóorlu nag sant rek nag waaye sant rek. ah Malum Ndiaye mi de dox na moom sant nañu yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw. sant nañ de tabaski bi neex na trop wax dëgg yàlla jaay nañu daal moom kenn ku nekk daal li sa wërsëg moom jaay nga ko ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wér. waa yi yi moom ñu ngi ñëw moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek ñu ngi ñëw moom sant nañ bu baax. ren nag moo tane daaw moom ren moom moo tane wax dëgg yàlla moom ren moom for nañ dara moom jaay nañu moom wax dëgg yàlla moom. waa yëre xale yi nag moo gën a dox moom mag ñi moom daanaka xottiwuñu xotti ba am solo moom <laughs> yëre xale yi daal moo gën a dox moom. yaa ngi mi ngi dox moom. waaw moom wax si ñu ngi koy jënd ak vaal yi ak bassin euh, riche gold bi yooyu moom moo xew ren moom ñu ngi koy jënd bu baax a baax a baax. riis gold bi moom 5000 rek lay jar 5000 lay jar wax si mètre 1000 francs waal mètre 600 waaw.